kalimatillahi tammati min charri ma xalaq bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alladi jaalana xayra ummatin uxrijat linnas wasalaatu wasalaamu ala nabiil huda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi saanin ila yawmi din bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba aski Serigne Touba borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jéggalu yàlla sunu borom di ko ñaan mu jéggal nu di balu àq ñëpp di sant yàlla ci boole gi mu boole Serigne Touba di ñaan yàlla bànneexeem bi muy jëfe yàlla na bokk ci li ko neex yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha taw feexal ko ba li mu bëgg a liggéey lislaam ci toolub lislaam bi ñu dénk Serigne Touba mu liggéey ko nu ànd ko moom te daje ci ngërëmul Serigne bi tey jii nag Saxum Touba lañ waroon dikk ak yéen waaye dafa am benn déclaration bu jàmp boo xam mënuñu koo bañ a def jëmale ko ci bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp rawatina képp ku sukk lu jëbbal sa bopp Serigne Touba yaakaar ko àdduna ak àllaaxira ngir jëmm yàlla yont bi loolu mooy lan mooy ndaw si ñuy wax Aïda Diallo mbiram dem na ba egg na foo xam ni mënatu la jàll fi lay yem egg na foo xam ni dafay war a yem duñ ci dellu si ci lim fi def lépp ak lim fi wax lépp bu ñu yaakaar ni dañ leen topp ci guerre de communication bu ñu waxee ñu wax bu ñeneen waxee ñu wax déedéet léegi jëf moo jot jëf ji nag mooy lan mooy am na ñoo xamante ni bii ay noon lañ am na ñoo xam dañoo bokk ci yoon yi ba noppi seenum xel eggul fenn fi ba ñu yaakaar ni liggéeyub Serigne Touba bii lenn mën na koo yàq waaye saytaane ñëpp lay yàqal waaye bu ñu ko noonu na nga bàyyi lépp léegi sa sol yàqal Serigne Touba li mu liggéeyoon rek ba du dee tukki lu ci mën a yàq dara liggéeyub Serigne Touba noppi naa yàqu moom bu ngeen delloo ci lislaam ji nga xam ne moo taawloo yoonu murit lislaam moo jur yoonu murit lislaam ba fi yonent bi nekk ak ba mu fi jógee yépp gis nañ fi bis bu nekk ba jamono yii yéen a ngi gis loo xam ne ñu ngi koy tudd di tudd l'islam te jotewul ak l'islam dara te mënut yàq l'islam mënut yàq alxuraan loolu nag li loolu nag moo moo moo moo nekk ci yoonu murit ndax loolu moom moom mooy taaw li ma bëgg wax rek mooy yi ngeen fi gis yépp ñu koy wax ci yoon bi ci loo xam ne lu tegewul ci yoon la lenn lu ci nekk ci biir l'islam rek la nekk ndax l'islam nee naa la yaa ngi fi gis loo xam ne jotewul ak l'islam dara te am na ñu koy tuddoo sol mbubb moo ma naan ay jullit lañu loola it moo nekk ci biir yoonu murit kon dama bëgg nun ñëpp nu ko xam ni du man du kenn Sëriñ Tuubaa liggéeyal na liggéeyal yàlla boo xam ni fa mu ko teg dara mënatu koo yàq ñi nga xam nag yeewuñ nag ñoom ñooy ko nag di ci jaare yaakaar ni loola mën nañ koo yàq wala mën na cee dindi dara ba ñu waxee ni seexal nañ ko man mii maa taxawoon ci télévision ba woote wax ni leen ba tudd ci ñi ma tuddoon ñëpp Cheikh Basak ña ma ko waxee woon ñëpp ma wax leen boobu Cheikh Sidi Mokhtar moo fi nekkoon ndax dañ ko doon sukkal muy ndaw sii ñuy wax Aïda Diallo bari na seexal nañ ko baran ko ko tedd ki loolee nag bañ ko defee man fa saase laa jóg Cheikh di Mokhtar daal di koy dégg jël ci ay dogal fa saase wax Cheikh Bass ni ko Cheikh na ko Cheikh Béthio teg fi suuf moom ci boppam teg nañ vidéo bi di ngeen ko seetaan ci Saxum Touba moo xam leen ni ko luy jëm ci ak Cheikh moom waxul boppam waaye képp ku ko ku ko doon wax lu mel noonu bàyyi na ko loola kon du ma ci dellu siwaat beneen bi topp mooy dem na ba ci ñu ñuy tuddee borom xam-xam sax ñuy wax ci télévision yi wala réseaux sociaux yi am na ci ñoo xam ne léegi dañuy wax di bay song tarixa yi mel ni ñoom ñoo yàq diine ji wala dara ñoo ñooñu am na ci ñoo xam ne france lañ jàng yër tuuti ci diine dégg nañ seen i wax bu baax dinañ ci dikk ak ñoom sàq bi leeral ko bu baax ndax lu ñu ciy wax rek dañuy teg seen i wax ba noppi soo ko wax loola mooy lan dem ba egg naan tarixa yi nàngam nangam nangam fekk ñoom ñoo ñe di ko wax lañ ci jublu mooy bëgg nit ñi nga xam ni jotaguñoo jàpp ci dara wala jébbalooguñu wala xamaguñu ni ñu fi ñu war a teg seen tànk ñu récupérer leen ñoom def leen ay taalube ñoom dañuy woote ca wet ga ñenn ñiy wax laa wax ci ñi tuddee borom bi xam-xam ak ñi naan dañuy liggéey l'islam ci biir réew mi nag laa wax lu wax parce que li ñuy wax bu ma ko tegee ngeen dégg ko da nga xam ne kii waxatul loo xam ne ngir jubanti la nit ñi la waaye bëgg a jël wax wax ju bon ak ñaaw teg ko tarixa yi lay doon loolu dama ko ciy dugaloon rek leeral ko Aïda Diallo ma leeral ci lu gàtt fit wi ñu yaakaar nit ñi am na ko amu ko dafa am lu ne ci ginnaawam ak ndof gu mu ndof ak ñàkk gum ñàkk xel ak ñàkk yàqu gum yàqu ak bon gum bon loola moo tax muy def lii muy def lépp li tax ma wax nag ñoom ci communication lañ bëgg jaar di jaaral seen wax jëpp muy lu ñaaw ak lu bon lu nañu di ko wax waaye li muy wax mooy li muy def Serigne Touba jéem a bëreel Serigne Touba dëkk waaye loola du egg ci Serigne bi yoonu murid ci boppam lay song maanaam képp ku jéblu ni samtu asamtu si yow la ay ay rajaal song yaa xam nag Mbàkke nga sant Buso nga xant ab nga loo mën a doon yow la song mbir mi nag bu ñu yaakaar ñun comme ni ko nit ñi ampleur bi ñu ko jox jàpp ni maanaam Aida Diallo dañoo àdduna sëpp dafa war a jóg dal ci kawam déedéet danañ ko faj te li koy faj lu tuuti lay doon loo xam ne ci yoon wi lay jóge saahir lay doon nag du doon baatin saahir si baatin bi mën na cee dugg de waaye na la wér ni bul jàpp ni maanaam yoonu murit tey bu fekkoon ne dañoo sonk Sénégal bëgg a faagaagal Sénégal yoonu murit bu ñu jógee mën nañoo fekk loola li ma la wax mooy doole jooju benn daayira rek xajul ci Aida Diallo waxantu bala ak ñaari daayira waxantu bala ak te ñëpp koy bokkandoo nag mbir mi tege fi suuf ndax yow ñàkk respecté Sëriñ Muntaxa ñàkk ko mal benn xalifa bu moo sa jaar histoire bu mel nii nga def ci Sénégal musta am yow Aïda Diallo benn xalifa musta am lii nga dem dikk tey suba tey poroxaan ja dara du ci dëgg bañ la yóbboo ba mu mën la ba yóbbu poroxaan xaalis bañ la jox nga ko sañ bi sëñ bi laalu ko ci loxoom la ngay wax naan sëñ bi nee na da nga xool ci soxna jaara loolu yëpp ay tappale la ña ko doon def nag ña ko àndal ak yàgg ñu koy yëpp loolu tëpp na leer na itam képp koo xam ne mbokk ga ak noo mën a bokk ci yoon wi ak noo cër boo ci mën a am ne la wér ni taalibe yi mën nañ laa sànni fële fañ lay sànni mooy bu fekkee ni Serigne Touba moom nga bëgg a jënd leneen ñu romb la fële teg la fële waxuma la jox la sax waaye nuyu sax mën nañ la a defati wala buñ la nuyoo nuyoo la nañ defuñu jënd jàpp leen te Serigne Touba lañ gëm gëmuñu keneen képp koo xam nag mel nga ni nga war def li nga boobaa day day doon tawfeex waaye bu fekkee defoo ko nit ñi yow ku ne ku ne mën nañ laa bañ a faale sax mën nañ laa bañ a xool loolu nag na bàyyi xel taalibe yi ñu jënd jàpp leen lenn lu ko jar amu ci àdduna te it na Aïda Diallo mii am na ci loo xam ni ministre bi ministre de l'intérieur ci boppam ba ko Serigne Mountakha ne nañ la sànni ca sën ba digal la nga bañ tere la nga bàyyi loolu tere la nga ñàkk a bàyyi booba normalement ministre ba ba mu demee ci moom bi koy ñaan autorisation ak cant waroon ni ko ni ko yow kat mënutoo loolu ndax soo ko defee mën naa indi trouble public ndax Serigne bi wax na lii waaye ni ko Aïda Diallo citoyen su bëggee def lekk ak cant su fekkee ne du indi trouble public mën na ko def ab Aïda Diallo xam nga ne fu mu defuk cant trouble public mën na faa am am te loolu bis ni que moom Touba moom dootoo teg sa tànk Ngaabu dootoo fi teg sa tànk feneen itam Ndakaaru itam fépp ko defee na xam ne noo ngi waajal ci fan yu néew du mat ay bis loolu sëñ bi dina ko yëg ñëpp dina ko yëg nun ñëpp jóg nañ fi ñu toll nii pare nañ yow pour nga teg mbir bi fi suuf loola neex nag mën nga caa nekk waaye di nga teg Serigne Touba fi suuf teg Serigne Mountakha fi suuf yoon wi nga teg ko fi suuf ak koo mën a àndal nag ak ku la mën a gemb yàllante woon tey Amérique gemb la kon ngay xam yoon murid mooy lan kon ngay laa tey ngay xam kan mooy Sëriñ Tuubaa waxantuma la ak nag keneen ku sa xel dem wala ku la yaakaar di la di ñoo gën a nekk see buñ jël seen responsabilité léegi te teel a dellu ginnaaw bàyyi muy Saliou Samb ak Mbow damay ko moom ci digg balaa jaar ndax yéen ñëpp Saliou Samb bokk na ci li bu mujj bi nga ñëwee kër Sëriñ Mountakha rek gis nga lañ fi def enregistré Sëriñ Mountakha dañ di ko génne di ko teg yow Saliou Samb na leen leer nag duñ nekk ci guerre communication fi ñu toll nii mbooleem kuréel yi nekk ci yoon yëpp daje nañu waxtaan nañu loolu wax naa la ko dinañ ko diggaale mu jeex tàkk fi saa si incha allah diggaale gi nag na la leer ni lu toll ni tarfat ay ni dong lay doon jaaxaloo yoonu murit jaaxaloo kenn ci yoonu murit dem nga bay tudd maam Cheikh Fall nan da nga koo gént lu ne nga dugg ci li sëñ Fallou Fall moo doon wax lépp dëgg la kooku doon wax barki dem bu banaa tey rek la wax di wax di dal ci kaw yoonu kenn gëmatu ci Sëriñ Tuubaa ay rajo ay rajo kenn gëm kan mën a jàngal ngëm man koo xam ne tekki dara ah dafa ñaaw yow yow yow Saint-Valentin bi nga xam ne yow sa yoon mar nañ ca bañ a nekk nga wëlbati ko jóge ci sëñ Mountakha xaan ñu ñëw Dakar ngeen ni da ngeen defuk cant di fecc di mbumbaay ah, ni da ngeen di da ngeen di feete Saint-Valentin ba noppi di tudd sëñ Tuubaa loolu nag li muy jur la sëñ Tuubaa waxoon rek seytaane dafa fekk sama diggante ak yàlla neex lool jag lool dara yàquwu ci mu naqari seytaane mu seet seet jëm koo yàq mënu koo yàq kon diglu wax bi kon li ma la wax ni sëñ Tuubaa kenn mënutu yàq ci liggéeyam dara kenn mënu koo tilimal sëñ Tuubaa nee na seytaane def na lu ne ngir mu mel koo yàq mu naqari ko mënu ko mu ma ñëw ñaawal sëñ Tuubaa ana nu ma seytaan yu ñaawale day fekk ku nekk ci lu mu wërta nekk ku mel ni Aïda Diallo mu ne ko demal tuddoo sëñ Tuubaa ak ñeneen ñu mu mel lii de maanaam dañ faj Aïda Diallo fajaale leneen lu Aïda Diallo ndax mbir mi yemul foofu rek bari na ci ay kuréel yoo xam ne mbii feeñ fu ne nit di fa jóge di wax di tuddoo sëñ bi te dara du ci dëgg loolu lépp nag ni ñu koy enquête di ko xool benn bu ci nekk waxoon naa leen ko da ngeen defee nag dañoo tëdd dina la mais kenn tëdd dina lenn lu koy càmbar ko xool kenn du ko dëkk waxuma la am réew du ko dëkk nit dina du ko dëkk nit du dëkk li wér daal mooy mbir mi day yem fii te dinañ ci taxaw temm incha allah rabi na ngeen bàyyi seen xel nag yéen murit yëpp na ngeen xaar déglu fan yu néew incha allah dinañ leen ko yëgal yéen ñëpp li ñu war a def nu ànd ko mbir ma jeex tàkk mu jeex te sëñ Muntaxa dina ko yëg bu soobee yàlla ndax li def nii yoonu murit yëpp nga attaqué am na murid yoo xam ne tàngal seeni xol rek mën na laa yóbbu sax sawar waxantuma la ak ngay al adduna te mbokk mboolem murid yi ñi ci gën a tuuti ki gën tuuti ka xamul dara sax ab xolam jeex na ndax nii nga bëgg def yoonu Sëriñ bi bëgg cee nekk di tilimal te mënoo cee tilibal dara ba ne bi dañ ciy profité wax ñooñu itam saye boo ñu wax bu seen xol waaye lii Sëriñ Tuubaa am dara mënu koo dindi ba ilaa yow diin nii lay mel di continuer dara du ko dindi ku mu naqare ku mu neex benn benn yi nga xam ne ñoo ci nekk muy mbokk muy ku mën a doon nekkoo ci li mu war a la waaye mënoonu yoonu murid bu soixante wala quarante yi déedéet dix pour cent wala cinq pour cent nga ci xool yoo xam ne nit ñi mën nañ leen a xàmmee ñu nekk si yoon wi di mbokk wala lu ñu mën a doon la ñuy def nit ñaa ngi teg seen bët te kenn faaliwu leen te jëppi nañ leen bàyyi nañ leen saye bu ñuy wax si guddeeg bëccëg loolu nit ñi xàmmee nañ leen loolu lañ bëgg a wax waaye yoon yi moom dara mënu koo yàq moom ñoom sa borom na ko ba noppi yow nag tuuti nga ci yow ak ki gemb koo mën a àndal saye bu ngeen xam ne loolu moom jeex na te dinañ ci jóg ñun ñëpp te léegi lay doon wax naa la ko léegi mboolem kuréel yi waxtaan nañu ñoom ba noppi pare nañ fi ñu toll nii ngir jóg jàmmaarloo yow te jàmmaarloo gi lu tuuti lay doon mbir mi tege fi suuf Touba moom waxaale wuñ ko moom sa tànk dootu fi tege waxuma laa ngaabu cant yi ngay def arrêt sëñ Touba na ko génn sa lépp yaa xam na bu fekkee nag da ngay tuub woo déclaration presse bépp ñu kooku yaa xam waaye mbir bi daal moom yoonu mu daal mayatuñ la ko moom bis nag day lay jeex daal ko loolu moom la leer ñëpp di ngeen si xam dara balaa yàgg léegi léegi léegi danañ woo ñëpp ñëw teew nañ ko defee woon ca Carmen ak lu ko raw leneen leneen na lañ koy defee mbir bi day jeex kuréel yëpp wax naa la ko kon foofu laa mën a yem ak yéen ba sàq bi ñëw incha allahu léegi ñu leeral ci sa lépp incha allahu jërë ngeen jëf